Zé nuyu naa lo yéen baa ngi jël bëgg sant yàlla bu baax. lan moo tax nga jël final démb tey nga ñëwaat. waa compétir rek. compétir quoi ay xale lañ to lu ci war a compétir après bu jeexee jeex na quoi. bëre bi ak jël bi lan moo la ci dàqal wala ñaar yëpp a neex. waaw mais boo xasee ba am amuru bëre bi rek boo jëlee da ngay ñëw boo jëlul dangay ngay ñëw ndax nit ki même sa liggéey sax boo ko gëmul bëgg ko pour nga ñu si du yomb kon nag li la ciy fekk amour bi mooy jiitu lu ñëw rek fekk la ci ñun dañoo bëgg bëre bi avant tout quoi. luñ ci am rek xëy na suñu wërsëg lay doon luñ ci amul tamit du suñu wërsëg. yee. mi ngaale. yee. normal. nice waaw. waaw. fan nga ci de léegi liggéey bi day gën a yokk voyage. la eh, toog Sénégal Dakar day war voyage. dem Touba siyaari sëñ si xalifa général ko lu murit dem Touba siyaar ala sëñ Ba Abdou Karim Mbacke mi nga xamante ne day suñu lépp. yee. 5 foo toll. ñu ngi demi final. huitième demi final demi final. waaw. Ada Boy Baol nga fi Boy Faye nga fi seen Kumpa nga fi yeneen xale yaa ngi. waaw ñëpp a ngi fi ñi fi nekk ñëpp ay champion lañ. yaa Boy Faye yéen a ko junjoonte rek. waaw xamante nañ dañoo xamante. Ah. waaw champion la may champion moo tax mooy loolu noonu. bu ngeen daje final. mënul ñàkk ñun est-ce que duñ daje demi final. ah demi final ak final bu la dàq. buñ ci daje baax na. mais en da ngeen booy fay ngi noonu dama koy yoxosu de sama gars yi dama koy yoxosu de nuyu naa la. fay bu baax. maa sant yàlla. moo tool demi final. maa ngi demi waaw. mais daa na de. waaw waaw la mais yàlla baax na. gis naa général gis naa seen kumpa gis naa euh, aada booy bawol gis naa booy fay. waaw mais noonu la làmb noonu la tëddee ay ndaw lañ dañuy compétir ñun ñëpp waaw ku nekk di wut si sàcc ñu fenn ñu bu waaye am yóbbul famem fi mu jaadu rek maanaam fu mu jaadu rek yal na ko yàlla jox ndam mais maa ngi ñaan yàlla defal ma am ndam. booy fay yaa ngi a ngi junjonte rek lan la da a léegi nii waaw. non ñooy daje demi final. waaw. en tout cas xam na ne taw taa da ngeen di bëre final ak demi final kon am nga ko nee na ko ñoom def jàmm rek. yàlla def jàmm. jaajëf. dégg naa sa ay yeggoon na ko bu sori yegg na ko bu sori Allah ji waaw xamante nañu yàgg nañoo laale Mbaye Babacar ndax général ndaanaan la ci làmb compétition yi yokk na dooleem ba bokk ci làmb Boy Faye nag kenn du ko présenté ndax ku nekk champion chef de l'état doon champion CEDEAO nekk champion d'Afrique kenn du ko kenn du la présenté moom Boy Faye ñoom ñaar daal en tout cas dinañ laale dinañ bëre waaw waaw bëre dina combat bi tamit dana bëri calcul waaw non yaakaaruma ko nag ndax ñoom ñaar ku ci nekk day bëgg a jaay sa morom du ma sa morom général noonu lay bëree booy fay da koy ubbil buntu pour bëgg général ñëw waaye dinañ laale. arbitre bi sifflé génn seen diggante. arbitre bi sifflé na Mbaye Babacar ñu ngi noonu. général féete la di joor. booy fay féete càmmoñ. bilaay ñoom ñaar jëli na ko baat ak toon baat ak toon daan na ko lan moo xew. booy fay daan général booy fay. daan na ko daan na ko jarul werante daan daan na gaay bañ na waaye daan na de action bi amul ku daan ah gaay nee nañ Boy Faye daan na de en tout cas doy na waar gaay nee nañ Boy Faye daan na de mais li ma jaaxal suuf mais général dafa mu jàllale ko da ko mu jàllale ko mais ñun ñu toog image bi dafa gaaw bu dee dënn laalut lan moo xew action bee gaaw mais en tout cas bi général de. xam nga jili chaque jour lamb ki def action mooy ëpp possibilité arbitre jox la victoire. te booy xool général moo def action moo plaqué daw ànd ak moom. moo tax. arbitre moom la jox victoire général da ko plaqué. daw moom lu sori. booy fay di ko jéem a tuur ci moment bi mu koy tuur nag. ñii nee nañ. booy fay dënn bi da bopp dafa laal suuf. ñu ne mais dënn bi moom laalu. waaw léegi loolu.